ñoo ko daaneel. ndox ñoo ko daaneel ci koñ bi la jaar jaar beneen koñ bi. moo daaneel kër gi. te maa ngi ci biir. te bu nekkee ci biir nag doon rangé foofu tuuti. ma boo xaaral ma noppal ko tuuti ndox bi di commencé ñëw ci biir koñ bi rek. laa génn dugaat. ma dugaat di rangé di rangé di rangé foofu la jékki-jékki rek ma dégg bi. bruit bu rëy ci côté bi la jëkkëte bëm. après demaat beneen côté dafa daan miir bi. dafa daan li miir bi fekk man maa ngi yoon à l'écart. mu obligé jàpp ci bant bi. bantu kii bi bantu kii euh, ardoise bi. ma langaamu ci. mais bu mu daanelee miir bi sama sœur tam sama petite sœur foofu ba ma fekk. bu ma fekkee foofu. bu ma fekkoon ma ne ko dalul dal na ma moom affaire jigéen day yóotu yóotu. quatre cinq cent mais waa koñ bi sax ñoo ma génne quoi. waaw ñoo ma ñëw génne. dëkkandoo waaw dëkkandoo ñoom ñoo génne génne sama sœur. kër gi yow kan fi nekk. man ak sama sœur ak samay doom. mais tey dégâts yi maanaam kër yi gis nañu dafa rasé complètement dafa rasé complètement kii kër yi kër moom kenn mënu fi bi inhabitable kenn mënu ci ci dëkk bagage yi jot ngeen ko rawale non non bagage yaa ngi ci biir pour le moment encore

waaw métti na trop bagage yi moom bon nit moo gën bagage quoi yàlla yàlla moom heureusement on est sain et sauf mais man aussi samay tànk tout le temps sama tànk yi moom moo sonal quoi waaw mhm. parce que nit bant yi nii la ma doon laale quoi mhm. ñu ngi sax sama tànk yi dañ ko mujjee di frotter tey sax sax. mais lu mel ni def mel ni mu ngi soog am grand F wala gëjoon na fi aussi. non gëjoon na fi. mu sax am grand F mais musul def dégâts bu mel nii musul dégâts def dégâts bu mel nii lii moom dafa garaaw bon mos na ko def fi mu ne fële euh, benn néeg bi daanu ñu jëfandikoo daanalaat ko donc problème ndox grand F bi dafa doy waar xaw ma seen pompe bi xaw ma moo baaxul xaw ma lan la. Vraiment, euh, c'est déplorable. C'est écœurant. Hein. Ça, c'est pas normal. Nous avons c'est autorité, surtout le maire de Grand Yoff, mm-hmm. mu jug ci ci problème canal Nous bi bu évacuer une bonne fois. nous gën mu gën quoi. mais avec ça hein, vraiment les gens sont fatigués. merci beaucoup.